diggaale ne wax dëgg yàlla day soxna si ne léeg-léeg Cheikh Tidiane mbokkam mi ne bugaan mbokkam mi ne bu fi ñëwoon di ko seet si ne xamul quatrième xamul cinquième waaye ca kaw la ne soxna moom mi kebe moom mi musal moo koy moo moo koy benn waaye fekk na am na leneen lu leen boole te nee booba moom xam ko ndax nee Baara Diouf mi jur soxna jaaga mii nee waa Kawlax la nee magam Alaaji Babacar Niass moo ko bi alxuraan depuis Bachir mi ma ba sori woon na ci lool booba dama ko Strasbourg ne sëñ bi ne loolu kon diggante bu yàgg la ne tool yi ñoom dañoo jàpp ni kat coon ci la bokk doonte koon day amante naa ñëpp waaye nag wax dëgg yàlla ne bugaan mii moom bokk na ci ci ñi ko yéene li mu war a yéene boppam wala sax ñu teg ca dara ndax ne bugaan yelloo na ko ne ubbil nañ ko ascenseur ubbil nañ ko ubbil nañ ko ascenseur ne bugaan ci escalier yi la jaar di yéen ban naan ne jiwul aw yoonam ne rakkam si di lamin wan ko yoon bi ne mu continuer kat ba am ascenseur ne kon nag ne kooku Amérique moom la ñuy wax self-made man mooy nit ku defar boppam ban na ca kaw boo ko joxee réew mu yóbbu réew ma ca kaw waaye nit koo xam ne waaye nit koo xam ne bu bëyeem dee métti sax fay dentiste mu foqal ko. mënta am lu mu fay dentiste pour mu dindil ko bëñ bopp. kooku jot a nekk dara. Amérique nag. Amérique nag. self made man lañu xam. ki defar boppam. ki defar boppam. ba soxlawul soxlawul dara pour boppam. ba soxlawul dara pour boppam. taxaw nag bu ne damay defal taxaw nag bu ne damay defal réew mi ñu gëm ko. te loolu. te kat loolu. candidat bi nga xam ne 365. <coughs> Euh, candidat bi xam ne mi ngi dem ci bëgg a dem trois cent soixante cinq. muy bisi at mi. ñetti téeméeri juróom benn fukk ak juróom. li ma ci mën a wax ci bugaan mi. lim ci mën a wax ci bugaan mi. mënu ma ko wax ci trois cent soixante quatre. mënu ko wax ci trois cent soixante quatre. ne mënu ko cee wax de. tey jii am na ku ma seet si woon. ne tey am na ku ma seet si woon. bi ma wax ne dafa bëgg a nekk candidat. di ko wax ne dafa bëgg a nekk candidat. ma ne ko est ce que am nga juróomi milliards yoo xam ni. mun ko est ce que am nga juróomi milliards yoo xam ni. war nga koo ñàkk. war nga koo ñàkk. pare nga koo ñàkk. pare nga koo ñàkk. donte le amoo dara. donte le amoo dara. mu ne ma aw ma sax milliard. mun ko aw ma sax milliard. mun ko am nga lu xew. mun ko xam nga lu xew. mu ne ah. mu ne ah. candidat wàcc na la. mun ko candidat wàcc na la. candidat wàcc na. candidat wàcc na. ku bëgg a war am réew. ku bëgg a war am réew. ni maa leen ni maa leen te amoo paas. te amoo paas. amoo loo paase. amoo loo paase. loolu wàcc la. lii am tey nag. lii am tey nag. day dogalub yàlla. day dogalub yàlla. waaye yow moom. waaye yow daal moom. su fekkoon ne soxna sii. su fekkoon ne sii. jigéen dana nekk wurusu ngalam. jigéen dana ne wurusu ngalam. kursu ngalam nga kon boo ko ñàkkee kon boo ko ñàkkee ku la newul massa ku la newul massa kooku sam noona mi ndax réew mi milliards yomb na fi milliards yomb na fi waaye soxna su baax waaye soxna su baax jafe na jafe na fi te ñun demuñu waaye lu xew ci dëkk bi nag daañu koy te dégguma ko fenn. te moom it fenn. lu muy ci état bi. te bu leen amoon. te bu leen amoon. buñ ko waxul it. daal ko xam ne jël. waaye na soxna ya daan jur doomi soxna. na daan jur doomi moom it natu mel na. dafa jur si ci gone yi. dafa jur ci gone yi. waaye ca mag ña la moom mais te loolu nag doy na lu ne am na am na euh, photo jabar boo xam ne bu doon moom nga am am na photo jabar boobu bu doon moom nga am léeg-léeg mu jaar ci kër ga léeg-léeg mu jaar ci kër ga ne la kat ne la kat damay bëgg a paal licence damay bëgg a paal licence te bugaat joxuma li ma jox ma te bugaat li ma jox ma tut nga jox ko tani pat nga jox ko tani pat ah, sikki si moo gën a bëri de. mais sikki si moo gën a bëri de. waaye moo baax kese. waaye moo baax kese. yow moom. yow moom. am nga droit jooy. am nga droit jooy. am nga droit yuuxu. am nga droit yuuxu. am nga droit xataraay. am nga droit xataraay. parce que li nga am la kenn am. parce que li nga am la kenn am. li nga ñàkk kenn ñàkk. kon li nga ñàkk kenn ñàkk. massa tuuti na ci yow. nee massa tuuti na ci yow. sigil ndigaale tuuti la ci yow. kenn rek moo la mënoon defal. kenn rek moo la mënoon defal. mooy ku mën a ñëw rek. muy ku mën a ñëw rek. fëgg bàmmeel bi fëgg bàmmeel bi. mu jóg taxaw mu jóg taxaw. mu ko demal sang. mun ko demal sang. demal fomp rongo yi. demal fomp rongo yi tëdd génn. waaw de fomp rongo yi bugaan yi. fomp rongo yi bugaan yi. te loolu amatu fi. ku man loolu amatu fi. ne ku man loolu moo fi amatu. kon nag kon nag. foofu rek foofu foofu la ñun foofu la suñu yëf mën a yëpp. mën naa wax bu ma neexee. ne mën naa wax bu ko neexee. daaw daaw jéeg bi ko ci màggalu soxna May. ne daaw jéeg ci màggalu soxna May bi. ci laylatu xadar bi. sëñ Bass Abdou Khadre. nee sëriñ Bachir moom sëriñ Abdou Khadre. nee na ma yow mii. nee na ko yow mii. yaa ma doon maa waaw mu ne ma fuuf. foo taxaw rek. mu ni foo taxaw rek. mën nga faa waxal Touba. mën nga faa waxal Touba. te kenn du ko wét. te kenn du ko wét. te sama doom dafa nelaw ci oto bi sax waaye sëñ Bamba. ne doomam dafa nelaw ci oto bi sax waaye sëñ Touba la ko tuddee. kon it muy indi ko fii rek. ne ko it muy indi ko fii. ah xanaa kon bu boobaa. xanaa kon bu boobaa. ñu xam ne raay bi téye ñu xam ne raay bi téye. waaw ah, parce que. ne parce que nag. ku baax nit ku baax. nit ku baax. day bëgg lu baax. day bëgg lu baax. te bokk na ci lekk bu baax. te bokk na ci lekk bu baax. kon boo bëggee lekk gi saf xorom. kon boo bëggee lekk gi saf xorom. war la tax nga bañ lekk gi saf suukar. war la tax nga gi saf suukar. te diine ji. te diine ji. am na ci ñoo xam ne. am na ci ñoo xam ne. lu saf xorom la ñuy togg. lu saf xorom la ñuy togg. am na ñoo xam ne lu saf suukar. am na ñoo xam ne lu saf suukar togg. ci ne nag ba nga ba nga tiim. ku ci ne nag ba nga ngay nekk. ca ngay nekk. waaye doo bañ bi ci des. waaye doo bañ bi ci des. ndax dañuy mottaliwante rek. ndax dañuy mottaliwante rek. bu bii nekkee plat principal. bu bii nekkee plat principal. bii nekk dessert. bii nekk dessert. sama bàyyi ci boppam. ne bàyyi ci boppam. nettali ma ne ma. nettali na ko. toog na dëkk bu ñuy wax euh, dànk seen. toog na dëkk bu ñuy wax dànk seen. ne sëñ bii ma àndal. nee sëñ bii ma àndal. El Hadj Babacar moom moo jur yaayam. moo jur yaayam. waaw fële fële Ibrahima seen ak àll seen dëkk. waaw waaye moom seen la sant. nee na moom seen la sant. moom it dànk seen la dëkk. moom it dànk seen la dëkk. mu ñëw ñu doon ko bayal ay tool. ñu doon ko bayal ay tool. moom fa ñetti fan. moom fa ñetti fan. ba guddi gu njëkk ga. guddi gu njëkk ga. mu ne ah. ah. man de gis naa lu ma jaaxal. ñu ne ko lan la. ñu ne ko lan la. mu ne pënd bu rëy. muy pënd bu rëy. jinne yaa ngi dem Touba mu ni jinne yaa ngi dem Touba rek kon ay jinne jinne ñi ngi dem rek ay bi kenn xamul lu bi kenn xamul lu mu doon ci ëllëg sa ci ëllëg sa ci la aw fas ñëw aw fas ñëw boobu téléphone amul rajo boobu téléphone amul rajo amul ñu sëñ Baara ñu sëñ Baara mu sëñ Touba mu sëñ Touba moo génn àddina moo génn àddina taalibe ji jinne mi nag taalibe jinne mi nag ñoom ñoo ko teel a yëg ñoom ñoo ko teel a yëg di daw Aminata. mooy Mamadou Lamine Aminata Lo. waaw Aminata Lo. Aminata Lo. moo ko jur. jur Cheikh Moustapha. jur Cheikh Moustapha. borom njañ. borom njañ. kon nag loolu. kon nag loolu. mel na ni. mel na ni. ku ami bopp. ku ami bopp. da nga leen di xam. da nga leen di xam. ba jeexal ba jeexal leen. kon nag. kon nag. walilaahi alhamdu. walilaahi alhamdu. maa ngi nuyu. maa ngi nuyu. képp ku ma bokkal. képp ku ma bokkal. diine ji diine ji. ak tariixa tiijaan bi. ak tariixa tiijaan bi. ak doo lay wirdu salaatul faatiha. ak doo lay ndax sax. ndax sax. yow bugaan. yow bugaan. dañoo am ay waxtaan. dañoo am ay waxtaan. te temps yëpp jotuma la. te temps yëpp jotuma la. waaye. waaye. am na luñ ma won am na luñ ma won salaatul faatiha ci salaatul faatiha buñ la ko defalee buñ la ko defalee ndog dana jeex ci ndog dana jeex ci xam nga nag ndax ndogam ci yow ndax xam nga na foo ma sa fakkataloo am foo ma sa fakkataloo foofa la waaye duñ koy dindi waaye duñ koy dindi incha allah parce que dindi ko bu baax di la ñaanal yàlla di yàlla gudd fan gudd fan ak wér gi yaram ak wér gi yaram ak bokk ci ñuy séddale ak bokk ci ñuy séddale ndax àddina ñaar rek fi àddina ñaar rek fi ne kuy séddale. kuy séddale. ak ku ñuy sédd. ak ku ñuy sédd. ku ñuy sédd nag. ku ñuy sédd nag. boo bari lee. boo bari lee. du ci yow du ci yow. sa koy séddale la la. kon nag yow yal na la yàlla boole. kon nag yow bugaan yal na la yàlla boole. ci ñuy séddale. ci ñuy séddale. parce que. parce gor nga. gor nga. jullit nga. sa kanam da nga ko ubbi. sa kanam da nga ko ubbi. tëjoo ci kanam kenn. tëjoo ci kanam kenn. nëbboo kenn. nëbboo kenn. làqoo kenn. làqoo kenn. gëddoo kenn. gëddoo kenn. dóoroo kenn. dóoroo kenn. dammoo kenn. dammoo kenn. lafañuloo kenn. lafañuloo kenn. gumbaloo kenn. gumbaloo kenn. fattuloo kenn. fattuloo kenn. kon nag. kon nag. ku am yooyu loolu. ku am loolu. am nga cër. am nga cër. yàllaa la ko jox. yàllaa la ko jox. yàlla. yàlla. bu la nar la yen bu la nar te yen du la jox téy du la jox téy te jox na la téy te jox na la téy xaw ma nag bañ waar gurée ngay am xaw ma bañ waar gurée ngay am nag bu woyofam bu woyofam ah, da nga yenu waaye da nga yenu wasalaam